بسم الله الرحمن الرحيم ñi ngi dellu di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci bés di bisu di sant yàlla moom mi nga xam ni jamono ju nekk jaam lu dul di ko bàyyi xel bu ko defee itam bàyyi xel boobu mooy ànd ak jëf la mu santaane waaye mooy ànd ak aussi mooy du ay tere ndax yàlla ci dogalam lu mu santaane lu nekk rek dafa fekk mu yëg ni loolu dafay am njëriñ ci mbindeef waaye lu mu tere lu nekk aussi boobu dafay fekk mu yëg ni loolu dafay lor mbindéef ndax comme moom moo bind comme moom moo bind moom yàlla moo tax mu mën a xam la mu bind lan la waaye xam aussi que mu bind kan la su ko defee bàyyi xel ci ay santaaneem dafay doon njëriñ bàyyi xel ci santaaneem dafay doon waaye moytu aussi la muy tere dafay doon sa njëriñ ndax bu dee yàlla moom ci boppam moom soxlawu ci benn njëriñ waaw ci nit ak ci jinne ak ci yeneen rakk yëpp ñi bind ñëpp yàlla soxlawul seen njëriñ ñoom mënuñu ko jëriñ mukk moom nag moo leen mën jëriñ moom yàlla su nga defee di jëriñu ci ci leeram te mu jaarale ko ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa di ci jëriñu dafay doon ngëneel dafay doon ngëneel bu yàgg ci rooxu doomu aadama dafay doon ngëneel gu yàgg ci rooxu doomu aadama waaye su ko itam moom mbokk mu tedd mu laajoon ni dafa bëggoon xam lan mooy différence xam-xam ak xikma mu ni luy seen différence ñu wax ni diw dafa am xam-xam ak ñu wax ni diw dafa am xikma mu ni bu ñu xoolee wàllu xikma te yàlla joxoon ko yeneen ci yàlla luqmaan luqmaanul hakim dañuy gis ni ci xeet la ci xam-xam yi dañuy gis ni wàllu xikma ci xeet la ci xam-xam yi ndax xam-xam dafa yaatu boo xasee ba tijji bunta lu nekk ni ci li nga xam ni danga koy jàng ci téere mën ko nettali li nga xam ni danga koy yëg ci sa yëg-yëg mën ko wax waaye li nga xam ni itam ci wala duniyaa ci lañ koy delloo waaye aussi la delloo ci hikma ci xeet la ci xam-xam yi soo defee nag la leen wutale mooy boroom xam-xam moom boroom xam-xam moom mën na wax mën na wax ba noppi ci biir waxam ja ci xam-xam ñu corrigé ko waaw xam-xam xam-xam moo koy corrigé boroom xam-xamu kese mën na wax ci biir xam-xam waaye aussi ñu corrigé ko ci biir xam-xam waaw waaye boroom hikma moom kenn mënu ko corrigé ndax li mu nekk dañu ciy dégg solo boo xam ni mooy nga jëriñoo ko rek moo lay mën a dimbali waaye du nga corrigé ko moo tax ngay dégg ñuy wax ni xakim yi lu ñu wax rek dafa fekk ni solo bu yaatu mi ngi ci seen xam-xam nag moom mën nga ko wax ñu corrigé la ci biir xam nit mooy yenoo delloo ca wàllu lubu wa danoo tuddee prophétie prophétie kenn mënu ci corriger nit ndax discours muy tëbiir du moom discours borom bi waaw wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illa wahyun yuuhaa waaw moo tax wahyu moom kenn mënu ci corriger borom ndax fa muy jógee tax waaw su ko defee aussi ilmul kenn mënu ci borom ndax fa muy jógee tax lu dul loolu muy xam-xam boo xam ne day dellu ci téere nit mën na ko wax nit corrigé ko ci te ñoom ñaar ñëpp am dëgg ndax ci xam-xam la ñuy waaye boroom xikma moom du jiital du jiital la moo jàngale comme ñu ni loolu maanaam moom la nopp yu war a dégg rek ñu ni nàngam nàngam lu lu normal la déedéet boroom xikma day jiital sagesse waaw maanaam moom du jàngal nit du jàngal nit bu xëyee la mu war def daf koy jàngal lay jëriñ dundam lay jëriñ dundam nag bu xëyee la mu war a def ma bu gontee la mu war def ma buy fanaanoo euh, ca biir këram it la mu war def ma waaw kon sagesse la koy jàngal waaw yeneen ci yàlla Luqmaan gënoon ci siiw yeneen ci yàlla Luqmaan gënoon ca siiw ba ñu mësoon a xam ni kàddoom yépp yàlla dafa tegoon ci ku ko jëfe rek gis ni ci sagesse lay dell moo tax ñoom kenn mënul wax lu wutale wàllu xikma ak ndax xikma ci xeet la ci xam-xam yi xanaa bu ñu jëlee nag ci biir xam-xam yi moom wax xam-xam nangam lu ko wutaleeg xikma waaw kooku dana neex a tontu waaye lu wutalee xikma ak xam-xam moom xikma xam-xam la waaye dafa misé ci wàllu jàngale sagesse dafa misé ci wàllu jàngale teggin waaw xam-xam nag dafa bari façon su ko defee hikma ku ko yàlla dénk rek fekk na borom xel ku yàlla dénk hikma dafa fekk ni borom xel la ndax borom xel moo mën a analyser ba xam nu dund di doxe mu doxale ko noonu waaw kooku borom xel moo ko mën su ko defee loolu ci sagesse lañ koy delloo jàng téere nag ki am xel ak ki amul xel yépp mën na ko jàng waaw moo tax du ko dégg nga lu tax du ko dégg parce que jàng na ko waaye amul xel jàng na ko waaye amul xel ndax xel mooy interpréter xel mooy interpréter moo tax yàlla laaj ci alxuraan ni ñi xam ak ñi xamul ndax ñoo tolloo waaye ba mu delloo ci arbitre ñi mu jël mooy ulul albaab boroom xel yi ñoo ñu la jël ni kat yéenay arbitre wax na dëgg ndax ki ni xam naa keneen ni ko xamoo ñoom ñaar ñëpp ci xuloo la dëkk boo leen ko bàyyi waaye ki am xel moom dina ràññee ki xam xam ndax jar na mu di ko dina ràññee ki xamul xam ndax jar nañu ko koy xale kooku ku am xel rek moo ko mën te xakim yi yàlla xam-xam bi leen jox xel la ko laal waaw da ngay dégg ñoom seen wax barewul waaye nga dégg ñu ni lu ñu wax rek dafa fekk ni solo bi ci nekk ëpp na lu ñu wax rek ñu ni solo bi ci nekk ëpp na parce que koy jëriñoo ci teggin da nga ci tekki tandis que xam-xam moom mën na la dikkal fu ne xam-xam mën nga ko yanu yanu ca xam ni kenn xamul na mu toll waaye boo amul xel moo ko interprété du sotti du sotti lu ci nekk rek dafa am teggin bu muy ànd lu ci nekk dafa am teggin bu muy ànd waaw sagesse bi bu dikkul dikkul yàlla du ko soxla bu dikkul yàlla du ko soxla moo tax mag ñi daan wax seen wax yéen ni même jaamu yàlla bu àndalu sagesse yàlla yàlla sax bu ko yàlla li muy bëgg ca jaamu ji mooy mu ànd ak parce que ki jub di julli ne ah foofu ma julli mënuma ko bañ di xultu di xultu jarul muy julli parce que bu jullee kenn du ko moo ki jug di juli pour julli mooy julli ñàkk pexe àndul ak sagesse moo tax ñu ni looy te mu jëm ci wàllu yàlla na nga bëgg ba noppi laata nga koy jëf na nga bëgg ba noppi laata nga koy jëf su ko defee nag décryptage bi muy àndal xakim yi ñoo koy mën a def ci koy mën a jàngal ñoo la koy mën a jàngal lu am solo xaal la ñuy nekk di ca mbokk mi ñu waxoon ni quatre-vingt-dix-neuf bakkan rey na leen ak rey mu doonee lu cher ñu ni waaye que mu dajee laaj ko ni ko ndax moo mën na tuub kooku ni ko ak ah, yow kay xam naa ni ñu ni daf ko ca boole moom it muy téeméer ndax nee na mënuma tuub ma boole la ci waaye ñu ni que laa jaar te wax ko ni ko jot naa rey quatre-vingt-dix-neuf de ni ndax mën naa tuub que ni ma mënoo ko ma boole ko ci muy téeméer dama xamul yow nag loo ci xalaat ñu ni kooku daf ko wax ni ko mën nga tuub waaw ñenn ni daf ko ko wax ndax dafa ragal mu boole ko ci ñenn ñi ni déedéet dafa ëpp xam-xam ci weesu ñu ni dafa ëpp xam-xam ci weesu ndax nit li muy xamee ni yàlla bëgg na ko mooy mu nangu tuub dellu ci yàlla waaw bis boo nangoo ci bàkkaar ni jaratul tuub rek yàlla bëggu la waaw nga dégg wolof di ko wax ah man de ma bëgg nangam nangam ki yàlla bëgg ni mu koy xàmmee mooy lu mu mës dund dund ci musiba dana am bis mu ragal ni man kat xaaral ma dellu ci yàlla te bàyyi ni ma nekkee woon kooku yàlla bëgg na ko waaye ki nga xam ni dafa ni moom daal c'est fini jeex na li mu def ci bàkkaar mënatul dellu gannaaw waaw wala c'est fini yàqu na ba noppi moo tax mu continuer yàqu kooku na def ci xelam ni yàlla bëgg ko waaw ki yàlla bëgg moom lu mu mës def ci musiba bés dana xëy mu ni yi kat naa ko bàyyi ci suuf jëm ci yàlla waaw mooy ci yàlla bëgg noonu noonu la koy xam lu mu am jaar jaar jaar jaar lu mu doonoon koo xam ñépp seede woon musiba bés dana xëy mu ni yii weesu naa ko naa ko bàyyi waaw naa ko bàyyi nag te jëm ci yàlla kooku dañuy wax ni kii yàlla bëgg na waaye ki ni xam naa ni daal moom c'est fini jeex na waaw su ma ko bàyyi itam yii moom yàlla mënuma ko baal ah koy wax ni ko ah, comme yaa naa ba ni yàlla mënula baal waaw léegi yàlla toog rek bañ la baal waaw comme yaa naagu ndax ni tollu ba tax ñu ne xamul ni yërmandeem toll moo tax waaw moo tax yàlla yi li ñu ragal ñoom mooy tooñ seen moromu jullit ñoom ñoom moom la ragal ndax ka ngay tooñ mën nga koo serve léeg nga gis yow mal xiyaam ku ñëw yooxu baalu yàlla yàlla ni ko bu doon man rek baal ndax ni sama yërmande toll sax mayuma ma di la waaye nag problème bi mooy da nga jotewu nag man diw nga jotee demal wër ko ci mbooloo mi ba gis ko mu baal la bu la baalee rek nga ñëw dugg aljana waaye nga wër ko ba gis ko boo ko gisee rek diw song la ñaar maa ngi la doon wër sax pour li nga ma yore ndax bis boobu ñëpp a soxla yaa ngi doon wër pour mu baal waaye nga wër ba gis ko diw song la ni li nga ma yoree yow rek laa doon wër maa ngi doon xool lu la gisee xalaatul sax baal xalaatul tabbaan la waaye gis nga yàlla moom yërmande moo tax nitu yàlla yi li ñu ragaloon mooy xàq seen diggante ak seen morom waaw ñoom moom la ñu ragaloon ndax xam nañ ni bu desee ci yàlla rek yàlla soxlawul di condamné kenn yàlla boo demee ci justice am dañ lay xamal ni moom borom bi moom mi la bind am supériorité ci que bind soxlawul di condamné kenn waaye nag fii kun fi condamné dafa fekk ni wu sa bopp waaw yaa condamné sa bopp su ko defee ñënu condamné ñëpp yomal xel seen moroomu nit seen moroomu nit seen moroomu mbindeef moo leen condamné wu waaw ba wax condamné leen kii ndax yoreel na ma nangam ak nangam waaye yàlla moom ko juste la waaw su boobaa yàlla moom ku juste la waaw su boobaa mu neutre si mu neutre si moom yàlla bu ci neutre rek su ko defee lay ba lay ba lay dëgg ba moom la ñuy àtt moo tax lu jar di bàyyi xel li jar di bàyyi xel la nit du naa bu mukk ci ni c'est fini baaxatul jukkoom na dootul baax kooku nit du ci naan ndax da nga dul xam ni yërmande yàlla toll moo tax te bare na looy bàyyi xel def naa ko c'est fini yàqu naa nangam fekk na loolu boo demee day bu yëngalu leen ko waaw ndax yàlla mi bind nit def ci moom xol def ci moom rox def ci moom xel te lu nit jëf fekk fekk na mu jëf ko ci turam yàlla moom xam na nit na mu mel waaw yàlla xam na nit na mu mel yàlla xam na nit na mu mel ndax moom moo bind nit kon moom seen gënu ko xam nit xam na nit na mu moo tax nit du naagu mukk ci ni yàlla dootu ko jéggal kooku kenn du ko def waaw waaye nit aussi du naagu ci jëf waaw jëf lu rafet kenn du jëf lu rafet ba naagu maanaam maa ngi jëf lu rafet fu ma toll maa ngi def yiw ma toll maa ngi maa ngi maa ngi ma toll maa ngi séddale waaw su ko defee nga ni jeex na man boo boo bañee mu gaañ la boo bañee mu gaañ la da bàyyi xel ba noppi ki la jëfloo waaw doonaa la waaw soo bañee mu gaañ la da bàyyi xel ki la jëfloo moo tax doonaa la waaw doonaa la moo tax gis waaw doo jëf lu baax ba naagu waaw doo jëf lu baax ba naagu parce que am na ñoo xam ni yàlla la mu def ci yow ba ngay jëf lu baax su ko defoon ci ñoom boo mooy duul ñoo lay ëpp volonté ñoo lay ëpp volonté moo tax doo jëf lu baax ba naagu boo jëfee rek delloo ko ci yàlla waaye aussi doo nekk ci musiba yi xam ba naagu ni yàlla dootu jéggal ndax njéggalu yàlla lu nekk xëj na waaw njéggalu yàlla lu nekk xëj na moo tax benn bu ci nekk ci yooyu dafa am àtte benn bu ci nekk ci yooyu dafa am àtte yow miy jëf lu baax mënoo jëf lu baax ba naaw ni jeex waaw maa fi gën boo ko waxee rek c'est fini waaw boo ko waxee rek c'est fini waaw xakim yi dañuy wax ni nit a ngi toll nit a ngi toll ñu ni ci wàllu ñaaw téef tey bu ñu doon wax mi ngi au sommet au sommet ci ñaawteef ñu ni luñ koy seetee mooy nit ku dem ba toll koo xam ne ku mu gis rek jàpp ni moo ko loolu kenn du ko def ak lu la yàlla mën a jox lu la yàlla mën a cërle ah koo gis rek ni ak kii maa soo ko defee ci fin parce que boo ko defee dugg nga ci jukko iblis soo ko defee rek dugg nga ci jukko iblis moom mi waxoon ni maa gën aadam waaw moom mi waxoon ni moo gën aadam loolu soo ko defee dugg nga ci jukko iblis moo tax ñu nit lu la yàlla dimbali dimbali nga nekk ci yiw góorgóorlu ci yiw bi rek bañ wàcc yoon bi waaye ñu ni itam bu la yàlla nattoo wala nga topp sa bakkan ba nekkoon ci ay musiba ñu ni tuub du du paase waaw tuub du paase nit lu mu paase lu ne mën na ko jéggalu yàlla mën na ko lu yàlla te jublu ci moom moom kay li nga war a moytu li nga war a moytu nga xam ni bu la dalee mën na la dugal mooy amee sa bokk jullit xaq lu jar a moytu te léegi boo seetloo fii réew mi toll loolu looloo fi gën a banaan looloo fi gën a yomb waaw koo gis ma ngay fas nit ñi ma ngay fas diw diw ma ngay xas diw diw ma ngay xas diw ndax bokkuñu kër ndax bokkuñu tarixa ndax bokkuñu diine ñu kenn xamul waaw te xàq bi ngay seq sa digganteeg sa moroomu jullit moom dong moo la ko mën a bàttal loolu yoonu yàlla nekku ci moo tax loolu lu jare moytu la waaw yàlla ku juste la fa taala allahu malikul xaq waaw yàlla ku juste la waaye nee na nag sa diggante ak sa moroomu jullit moom xàq ba nga xam ni dox na seen diggante kooku kooku seeni mbir la te loolu yàlla du yàlla dafa a ay responsabilités ci yow jaam bi wala dafa raxas ci sa mbir dafa fekk ni dafa gis ni juste sa moom yàlla moo ko intervenir ci loo xam ni xàq la sa diggante ak sa moromu julli waaw ah. looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan daan soññe ci xàq bi nekk ci diggante nit daan ci soññ daan ci dénkaan ndax xatta la xam ni lu diis la te léegi lu nu woyofal la léegi toll na koo xam ni dañu ko woyofal moo tax ñu ni nit li koy sànk liy sànk doomu aadama ci àdduna mooy mu découragé walla mu beew découragé mooy lan mooy nekkoon ci lëndëm nekkoon ci lëndëm nekkoon ci ñàkk njubali ba xëy rek ne ah man de bu yóbboo sama euh, man laa daal di tëdd man xam naa ni man c'est fini waaw man moom ni ma nekkoon yàlla du ma jéggal mukk loolu kenn du ko wax ndax da nga xam ni jéggalal yàlla toll man bés ba nga jàppoo ba set tuub ni borom bi kat jéggalu naa dootuma ci duggati def dinaa nii mu dëggu ci yow boobu yàlla mën na la jéggal waaye mu beew moom boobu moo gën a ci garab waaw beew baaxul waaw boo beewee moom mooy ak ah, man de jëf naa loo xam ni moom xam naa ni xam naa ni wala jëf naa loo xam ne xam naa ni loolu loolu boo ko defee rek dugg nga ci erreur bu mag waaw te ñu bare loolu moo leen di trompé waaw ñu bare loolu moo leen di trompé waaw liy trompé nit ci àdduna dafa bare mais rawatina loolu waaw rawatina loolu ñu bari looloo leen di trompé waaw ndax jug rek am na ñoo xam ne seen askan moom la ñuy bàkkoo ak ande askanu diw laa bokk xam naa ni moom sama àjjana leer waaw te xamuñu ni kat ëllëg askan amu ko am na ñoo xam ne seen askan moo tax dafa ni ku julli ñoom sax ñeenti rakka ñoom ñaar la ñu war a julli waaw ndax seen askan waaw te te ci beew la bokk bis boo solee garam bu bu ñu gomee garam bu bu ñu gomee rafet na ci sol di dox waaye dox bi ngay dox doxoo ngir yàlla mais da dox ngir askan loolu daf la yóbbu ci beew loolu ci beew la la yóbbu xamul te lu sew ah, mën nga sol garam bu bu ñu gomee takk sa mbaxane def lépp te fekk ni yàlla tax waaye bis boo ko solee ngir puukaréew ci askan mu dugal la ci biir te beew toll na koo xam ne kenn xamul lan la léegi beew bi dafa wër fan yi rek ñu koy gis ci internet beeg fële nga gis nit ñoo xam ne dañuy dem ba jël or sax defar ci moom jël or masque ko xoolal ma loolu ci beew waaw def dem ba jël masque yi gars yi xaw ma seen coronavirus feeg yooyu nga jël or defar ci masque waaw takk kan pour pour que ñëw te mu am ñoo xam ni lekk ñu naan nga defe ni loolu fu mu lay jëlee la ci mbeewte bu yàgg waaw ci mbeewte la boobu amul benn njëriñ waaw balaa ngay yëg ni nag amul benn njëriñ guddi ga ngay njëkk fanaan ci bàmmeel waaw te nga yëg ni or ya masque ba nga ci defaloon benn njëriñ am dara lañ la dul laaj li jëm ci loolu waaw bàmmeel moom ku ko dugg buy boo xam ne lañ lay laaj mooy julli leer nañ te yàlla nan koor bu leer nañ ci te woon benn tappale waaw azaka boo xam ne mot na sëkk ndax génne nga wala génne am nga wér-gi-yaram bi am nga wërsëg bi ndax dem nga def xaj sa màkk yii de bu leeree moom xel mën na dal waaye bu leerul wala ñu brouillé ko bu ñu ko brouillé rek problème am yii moom bu leeree xel mën na dal après nag yuy ñëw soobee ñëwaat. yii bu xasee ba leer leneen luy ñëw nag soo koy ñëwaat waaw def na lii ci lu baax def na lee waaye yii moom na leer ba noppi rek waaw julli waaw julli bi julli bi moom bu xasee ba leer waaw woor bi aussi leer nañ adaka bi noonu xaj màkk bi noonu waaw te raxul puukare raxul bëgg rek ñu wax la alxaji tax nga dem su ko defee yooyu bu leeree ñu ne ah yeneen yi kat moom mën nañu xool waaye yii bu leerul yii bu leerul wala ngay xaar askan wala ngay xaar askan wala wala sant dangay dégg ku bàkku rek man nangam laa sant ma ni bu ngeen xamoon ni bari sax kenn du fa laaj sant xaw ma lu ngeen di wax ah kenn du fa laaj sant xaw ma su ma dégg ku ñu ni ah moom kat santam moo tax bu mu demee bari sax ci lañ ko mujj jàllale rek ni ko da dugg illi yi amul kenn du fa laaj sant parce que sant aadal du xaqiqa parce que du xaqiiqa bu doon xaqiiqa la rek kon ñëpp koy bokk sant ndax ñëpp ci maam aadama alayhi salaam ak Hawa ci la ñu jógee waaw kon benn ligne la benn ligne la waaye mbeew te dina toll foo xam ni ci kaw suuf kenn dootul xamante la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mbeew te muy fi muy nekkee sommet ci kaw suuf nga xam ni amatul dellu gannaaw ci ci mooy nee na nga gis ñii di bàkkoo ngir ñii di bàkkoo sant ñii di bàkkoo alal ñii di bàkkoo pouvoir mu ni kon mbewte la te wax na dëgg te toll nañu foofu te léegi toll nañu foofu loolu nag buñ ko demee ba yóbbu ko ci biir jàkke yi buñ ko yóbbee ci jàkke yi nga xam ni yàlla dafa ni wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada bu ñu ko ko yóbbee te ñëpp xam nañ ni jàkk yu bari loolu am léegi jàkk yu bari moo fa boo dee borom alal boo ñëwee ci kanam ngay toog boo dee borom sant comme ni ñu ko xamee ñun suñu réew mi comme ñoom sant ñu si bari dañ koy jaamu boo ñëwee ci kanam ngay toog waaw loo am xam-xam ci alxuraan ak loo ragal ragal yàlla ci gannaaw lañ lay sànni boo amul alal amuloo sant li ñuy a ci ginnaaw lañ lay sànni. wala ngay gis imam jékki saa julli ba yàgg nga kenn ko mën a gàddeel ña ko war a gàddeel tey nga ca gannaaw waaw ña ko war a gàddeel ña nga ca gannaaw ñu xam saa si julli bi ña nga ca gannaaw ñu sànni ñu nu sànni ci kanam moom mu fekkoon imam bi dafa gàtt ci wàllu alal wala ci wàllu euh, weer bi ni muy tuuga def xaalis ñooñu <laughs> daal ko mën a gàddeel waaw ñooñu la ñuy teg ci kanam mais ñi xam alquran bi moom xam dëgg-dëgg julli beeg saa si ña nga ca gannaaw ñu sànni waaw jàpp yu bari loolu xam nga loolu doy na waay te loolu yëpp ci côté bi ñu doon soulever muy ci côté mbeewte bi ci lañ koy mel ci côté mbeewte bi ak ñàkk xam nañoo pratiquer religion islamique ak ñàkk xam yonent bi nga xam ni yàlla lépp la ko joxoon te moo gënoon ëmb ñëpp waaw ah, lépp la ko yàlla jox te mësuñu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di doxe ba wane ci mbeewte wala wane ci leneen te lépp yàlla moom kon nga xam ni kon nga xam ku nekk xoolaat sa bopp farata lay doon kon yàlla ñu yàlla xiir ci boobu yoon assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala